xam ne ñun fee lañu affilié ñoom ñoo ci dox ba nga xam ne ñu xaw a dellu gannaaw tuuti daal di jël quelque ci ñun dugal leen ñu dem au champ te loolu noonu waa magasin kese la lu dem magasin ñun ñoo koy préparé ñoo koy bippe ñoo koy chargé ñoo koy livre magasin yi mais aussi lépp loo xam ne magasin am nañ ko comme inventaire ñun ñoo fay jóge entrepôt def dem defi ji ko fa kon amul lenn loo xam ne rek war nañu mën a xàjjale ñun ak waa magasin ba tax ñu tànn 151 personnes yi nga xam ne ñoo newoon entrepôt ñu ne dañ leen dàq def leen ay support te loolu amul bëgg nag suñu njiitu réew ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ak ñi nga xam ne ñooy magistrats yeeg jàppale seen i doom jàppale seen i rakk jàppale seen i frère parce que ñun lañ a sacrifier aussi ñu war a yokk taux de bi amee ba léegi tooguñu benn yoon tooguñu benn yoon lépp foo xam ne war nañ fa dem lépp loo xam ne war nañ ko def wala lépp loo xam ne war nañ ko bind bind nañ ko te incha allahu rabbi li ci des nag moom surprise lay doon ci moom ñoom parce lépp loo xam ne jar na ko ñun danañ ko def wàllu xeex au delà de l' action euh, juridique bi nga xam ne entamé nañ ko dinañ commencé xeex suba la ñu à partir semaine prochaine dinañ def ay marche ay sitting ak yeneen forme day xeex yoo xam ne ko pour que opinion nationale internationale ñun dañu bokk si kuréel syndicat yi nga xam ne ñoo nekk si monde bi man si bureau yi laa bokk déjà saisir na leen ñoom ñu ngi ñu ngi commencé bind suñu pour que xeex bi nekk une une une une bataille internationale quoi parce que ñii war ñu leen bàyyi noonu même su fekkee ne ñu gëm nañu suñu droit gëm nañu suñu yoon gëm nañu justice gëm nañu ne ëllëg si bi le jugement bi ñu am au niveau du tribunal gëm nañu ne juge dinañ ñu dëgg mais loolu mën nañu ko xaar. parce que dañuy bañ li dal ñii dal yeneen entreprise